julli si sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa maa ngi yëkkati kàddu nuyoo jëmale ko ci population bi ñu teru tey fii ci Daaru Xudoos may nuyu meeru Daaru Xudoos ak meeru Mboro ak meer yi nga xam ni ñoo seq gox bi di nuyu madame Seynabou Gueye Touré président du conseil départemental de Tivaouane di nuyu kilifa région bi muy gouverneur Amadou Sy ak préfet bu département bu Tivaouane di nuyu nag euh, ministre bi nga xam ni moo yor wàllu industrie ak mine Aly ak secrétaire d'État Abdou Ndéné Sall waaye di nuyu nag mbooleem kilifa yu fi teew rawatina kilifa yi nga xam ne ñoo jëlaat kër gi di ICS ñu tuddee leen Indorama te monsieur Loya nekk njiit li ànd ak euh, directeur général bu ICS Indorama muy Alassane Diallo ànd ak cadre yi nga xam ni ñoom ñooy jàpp ci liggéey bi ak euh, contremaître ouvrier ak mboolem liggéeykat bu nekk fii ci ICS. ma leen di fàttali rek boo leen gisee ma ñëw tey pour jox leen signal xamal leen ni bi ñu ñëwee ci réew mi ba tey mu ngi bëgg a def ñeenti at ak lu topp ICS mu ngi woon ci diggante dund ak dee loolu ku ne xam na ko jot naa yoon yu bëri liggéeykatu ICS ñu ñëw di manifeste pour ñaan ñu sauver kër gi loolu liggéey nañu si liggéey boobu moo waral ñu dem ba gis société boo xam ne société bu sérieuse la au plan international ñu tuddee ko Indorama mu racheter kër gi def engagement ak gouvernement bi ngir taxawalaat installation yu bees indiwaat liggéey ngir ICS mën a jëlaat li nga xam ne moo doon liggéey bi mu doon def looloo waral ñu waxtaan ak banque yi waxtaan ak borom bor yi ñoom itam ñu indi alal ju bare dugal ko ci renouvellement usine bi ci wàllu chimie ci wàllu mine bi ci wàllu centrale bii tey ñuy inauguré muy vingt mégawatts yu bees yuy tax tey ICS dootul soxla courant bu jógee Senelec xanaa moom mu doyal ci courant boppam daal di ko jaay waa Senelec loolu nag bu amee dañu ko war a maanaam téye fexe ba liggéey yi fi am ñu sàmm ko te yokk liggéey yi ndax ndaw ñi war nañu leen bàyyi xel gis naa leen léegi bi may ñëw waxtaan naa si également ak kilifa Indorama ICS waxtaan si ak directeur général ngir ñu yokk recrutement yi dama mu méngoo ak activité yi fexe itam ba lépp loo xam ne doomu réew mi mën nañ ko def ñu jox ko doomu réew mi ñu liggéey ko loolu bokk na ci li nga xam ni euh, bëgg naa ñu bàyyi ci xel loolu nag ça ne veut ku bokkul Sénégal waru fi liggéey déedéet lépp loo xamante ne lii dafa laaj àndandoo ci liggéey amuñu ci jafe-jafe waaye jàpp naa ne sénégalais yi xereñ nañu xereñ boo xam ni cadre yi fi nekk ak ouvrier yi xam nañu kër gi xam boo xam ni lu ci gën a bëri ku leen ci jàppale tuuti ñu war ko mën a doxal bu baax a baax kon maa ngi ñaan itam li nga xam ne ICS mu ngi koy def déjà muy di indi ndox ku jëmale ci gox yi ñu yokk ko ñu ngi leen siy sant bu baax ndax loolu du seen wareef waaye nag kuy def lu baax it da ko si gën a encouragé maanaam ñu yokk ndox mi yokk itam jàppale bi ci euh, mbéy mi maraîchage bi ak jàppale l'école yi dispensaires yi ak ba ci tàggat yaram bokk na si li nga xam ne euh, maa ngi sàkku ñoom ñu gën a jàppale daal gox bi su laajee ñun ñu indi suñu doole état bi dinañ ñëw renforcer li ICS e di def pour que forage yi ngeen di ñaan ñu jox leen ko pour que électricité bi ngeen di ñaan ñu jox leen ko parce que loolu bokk na ci programme PUDC boo xam ne dañ ko taxawal te kon y a pas de raison pour que département de Tivaouane surtout rawatina gox bi ñu mën a mottali liggéey boobu xam naa ne usine moom mënul def lépp ndax usine dafa war a am profit mën a régler ay comptam waaye maa ngi wax ministre bi mu jottali premier ministre li nga xam ne war nañ bàyyi xel ci dëkk yi soxla dëgg-dëgg courant ak ndox ñu mën leen ko jox tey jii am nañu capacité yooyu bu loolu weesoo euh, kër gi nag seen këra surtout yéen liggéeykat yi kon dangeen ko war a téye ak fukki loxo téye ko mooy gaa syndicat baax na défendre les intérêts matériels et moraux des camarades comme on aime dire dans le jargon syndical waaye nag boo déggee travailleur day fekk mu am fu muy xëy kon l'outil de production doit être préservé doit être soutenu te yéen a war a njëkk a jàpp ci loolu management bi tam jàppale leen ñu bàyyi xel liggéeykat yi parce que liggéeykat buñ ko jàppalewul kër du mën a jëm kanam donc symbiose la vraiment ñun état def nañ li ñu war a def daañu continuer di jàppale kër gi parce que encore dafa fragile te war nañu yokk investissement yi programme agricole bi ñu am war na tax bëggatuñu di jënd engrais bitim réew kon war nañu produiraat engrais bu doy ci réew mi ngir soutenir suñu agriculture loolu yëpp ay perspective la yuy jox espoir kër gi di ICS Indorama kon ñu ngi leen di ñaax yéen ñëpp ngeen jàpp ko jàppale kër gi jàppale seen bopp mais aussi ñu jàppale population yi nga xam ne ñoo wër usine bi ci lépp loo xam ne euh, mébét la si ñoom ngir li usine bi mën a def mu def ko li nga xam ne aussi usine bi mënu ko def ñun état bi ñu defal leen ko yéen population yi maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam monsieur le président de la république di la nuyu di la dalal jàmm fii ci commune bu Daaru Xudoos di la wax ne commune bi population bi yëpp kontaan nañ dalal la fi tey mën nañ ne bii mooy ñetteelu yoon du sa yoon bu njëkk di la wax nag ni ICS gi nga xam ne tey jii inauguré gi fi tey muy centrale à charbon bi loolu yëpp ci sa vision la loolu yëpp luy développé Sénégal la ñu kontaan ci lool di ko ñaanal yàlla yàlla lépp sotti ak jàmm ba ku ci ne gis ci sa bopp ci biir loolu population Daaru Xudoos nag ñu ngi may yónni ne la président de la république comme yaa njaboote ñëpp ñu ngi lay ñaan jeunes yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi industrie yi fi nekk nañ leen gestu dugal leen ci ñu mën cee liggéey beneen bi ci topp mooy suñu ndaw yi suñu jigéen yi ñoom tamit ay jàmbaar lañ lool ak góor yi fi nekkoon fii dëkku mbay la maraîchage bi nag moo fi dominé ci biir loolu ñi fi nekk ñëpp presque à quatre-vingt pour cent mbay bi lañ doon dundee ci biir loolu nag ñaan nañ ma may na ma wax la ma yeggee la que ni ñoom bëgg nañ nga jàppale leen seen dëkkin yàgg na trop ak ICS bi nga xam ne moom moo nekk fii dara masul ñaaw seen diggante si la ñu doon jëriñu loolu nee na ngeen dimbali leen ci ba ñu mënaat am ndox bu ñu liggéeyee wala ñu tabaxal leen fi ab forage boo xam ne dinañ ci mën a jëriñu ci biir loolu nag waa commune de Darou ñu ngi naan toujours ñu ngi sa ginnaaw gëm nañ sa liggéey gëm nañ la ndax yow Sénégal a ngi développé commune bi mu ngi développé parce que li fii dugal xam nañu ko tali yi tali nañu lamp yi commencé na ñëw bourse de sécurité familial yi kenn waxatu ko président de la ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla te incha allahu rabi daaru xudoos bi nga gis nii bul tiit bul ragal ñu ngi sa ginnaaw pour un deuxième mandat jëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm bëgguma guddal